encore je vais présenter deux gosses am na complication ci seen tour waaye am na complication ci seen sketch c'est un duo encore je vais présenter deux gosses am na complication ci seen tour waaye am na complication ci seen sketch c'est un duo ces deux boys ils sont extraordinaires mais euh, du ngeen comprendre li boy di wax Mass et ses amis tàccu leen leen bu baax a baax a baax Mass et ses amis donc gars je me présente ah, man la Mass kii mooy ses amis Diallo la sant war na am mbokk si yéen ses amis la sant donc gars yi ka moo xamul Mass ses amis fii deux trois quatre yéen ñëpp génn leen salle bi non génn leen waa toog leen garaawul pour ngeen xam Massi Seye tamit soo leen demee Instagram di ngeen ñu fa gis YouTube di ñu fa gis fépp di ñu fa gis d'accord gars yi dama bëgg ngeen bàyyi seen xel ci benn affaire ah si weeru koor weeru kooru chrétien yi maanaam. Cheikhu Ramadan. ba Cheikhu Ramadan Karim la ñuy wax. booy heure bi boo fi neree ma ci crème damay dem bàyyi la fi non doo fi ma cay crème booy dafa sedd. fii ka moo ko wax crème crème laa la wax. ah crème dama ko xawoon fàtte bi. donc gars yi comme je disais ñu ngi si crème ndeysaan est-ce que xam ngeen. chrétiens yi ñoom ni ñuy defee seen conférence benn la est-ce que pare ngeen pour ma wan leen chrétiens yi nan lañ doon conférence pare ngeen. donc dama bëgg lépp lu ma mën di wax rek ngeen ni eh, d'accord d'accord ngeen. aca ina bunóob ina bunóob balaga léegi jee buróoba jee buróoba joo buróoba léegi jee jee jee jee jee jee jee jee jee jee man mi njaago kii di joola kee di séeréer la ilaha illallah kañ ngay tëj li nga yor noppi fii ba amul ay séeréer ak ay njaago rek tey rek ma dee parce que attention li ma wax nii na yam fii nag parce que njaago yi dañoo bëri doole te xeexu njaago du jeex ku wee laaj amaan maane ne keroog dafa tooñ benn njaago moom ak njaago bi xeex nañ trois ans six mois démb lañ door a def seen mujjee xeex xanaa déggoo la naan xanaa déggoo la naan dooley njaago mendi gomis ferera dooley mendi gomis ferera dooley njaago donc gars merci loolu moo nekkoon histoire njaago yi ak li nga xamante ne mooy seen conférence jërëjëf eh, eh, eh, attends attends attends Ndiaye waaw xam naa bu poser la question la moo tax may simbeeku man sax loolu laa la bëggoon la la ngay simbeeku ni gars yi lii yëpp si essais amis la bokk gars yi tàccu leen kii bu subaa dama koy wàcceel kaamil xel bi neexul déggal leen ko. Mass et ses amis Mass say kawas kawamber na et ses amis merci beaucoup merci beaucoup waaw.